salaamaaleykum maa ngi lay ziar di jox sa wàccuwaay Iba bakkan di am contentement ak mbégte. jàkkaarloog yow vraiment nga euh, dëpp ma sa micro. dana ma neex. ndax nag euh, lu xam nga ni musa suub la. loolu boo ko déggee olof la yoo xamante ni mooy da ngay ci lamb waaye di ancien ci journaliste bo ma dëppee micro euh amna lo xamanteni sax mun na ko bañal ñen ñi waaye yow mënu ma la ko bañal ndax waxtanu lamb rek ci lañu dugg te xamna ni ci lay ñëpp ma di la déglu. mention spéciale site mention spéciale site mention spéciale site fekk ñi fi ñepp bayyi mu jël ko ak ngarmeem ak domam ak uk ak uk talam ak bëgg réew mi waaye bëgg ki nga xamanteni tay mooy adversaire am di la de numéro 2 ndax bëgg gi ta passé ponkal yi nekk fi di daw la de Guiers Siteu mi nga xamanteni ni si mooy taalibe Bamba ñëw and ak ngorom ak uk ak conscience am ñëw xam ni Lac

Bàkkaar fu mu fekk ndeer day day day ci kaawam lay fanaan te ndeer du moroomam kon su Siteu demee ba am conscience am fit ak euh, nite gu toll ni jël la tegeer xëy na moom am na luñ ko déey wala lu mu jàngat ci di ala kulli xaal bés ba du bisub bisub dun du bisub dee war na koo mën a daan waaye la tegeer mën na koo mën a daan noo xam nga victoire ah ndam yàlla moo ko yor mais ci li nga xamante ni tey bu ma doon conseiller la dëgër dama koy wax nii ba nga dëlee bëri ak léegi cër boo mus a joxe mbër tey moo ci war a raw li tax mooy Siteu situation bi mu toll àdduna jox ko loxo Sénégal jox ko loxo ñëpp bàyyi ko xel ndax njàmbaar gu mu def ba tax nit ñi bëgg ci ñoom mu jël mu retourné jël la dëgër la dëgër war naa def très attention te fonk Siteu te jox ko cër xamanteni si du ko jox kenn. mais am contentement loolu ak mbekté parce que soxla won nañ ndax da tolon nañ ben dimension bo xamanteni buñu bu ñu daan woon àdduna tukki bu len rek rek buñu rek rek daanon luñu musa defar ci aduna day yàqu té ñun demal nañu ba Iba bindon bindoon école du lit balagay moy mooy e, école du lit balagay mooy mooy meilleur école de Balla Gaye moo raw ci kullu mbër wala kullu école de wala kullu écrit kon loolu suñ demee ba amoon loolu dem ba mujj ñu bëgg a dem ba nekk après ndaare loolu marre de taali la moo tax ma ni combat bii passé diggante Sa Thiès ak Reug Reug Sénégal soxla woon nañ ko waaye Guédiawaye ñoo ko gën a soxla waaye nag ñu ngi félicité Sa Thiès mais di encourager rëg-rëg ndax rëg-rëg li mu war a def yëpp def na ko yàlla moo joxe ndam moo joxe defet jox na ko defet Iba maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di wax ni lii may wax nii tey yow rek yaa ma ko mën a wax loo ndax yow la yàlla may xëy na euh, puissance bu tol ni foo ma fekk dëpp ma micro du ma la mën a gàntu laa ilaha illallah xam nga loolu comme ñëwagul dañ ko écho